e Sénégal am na lu fi xew xaw ma tan waaye lii moom day dakk sa moom lii moom day jeex tàkk damay dem sama yoon tan Jean oh, Michel eh? ah, ah. tan man day moom du ma ci boolante benn wax ma nekkee ci biir kër ñu di ma jëndeem xar danaa fa ne ñukk lépp dem sama yoon tan doon damay dem sama yoon laay def waaw léegi nag da dem te doo ma tàggu lu ma lay tàggoo doyee ah foo jëm da wayaas xam nga lu ma soxla nga may ma sama bopp ba sama tànk ma dem sama yoon. sonn naa damm naa dee naa. nekk ci biir kër gi di sëy nga taxaw carrément ne xar mii moo ma la gënal jëlal sam xar ma dem sama. da nga ñaan baat. waaw may ma sama baat. mayu ma la. nga ni mayu ma la may ma ma dem ñàkk ma may ma dem. yow ma yow wax ji foo ko boo jar na nga yëkkati di yëkkati nii. bañ a yëkkati bu jaree nga yëkkati jaasi ba teg ma ko fii àddina yëpp di ko gis. mu jar ma génn dem balaag moom. rama xanaa xamoo xarme xarme man waxuma si lu bon. dama la ay sam xarangoog toogal ak sam xar man ma dem seeti samay mbokk. waa léegi mayu ma la baat léegi mu jeex xanaa loolu jeex na mayu ma la baat. may ma dem ñàkk may ma dem sonn naa damm naa dee naa rey nga ma aw ma jàmm fenn. mënumaa seetu samay xarit mënumaa wax ak kenn. man damay kaf rek. samay xar mi moom rek. ah kaf ba ci jaasi. wax nga dëgg mais mais mais. yaay kaf ba ci jaar si. di nga xam ne man kafu ma man. yaay man damay dem man. yaay foo jëm. damay fay. déedéet yaay tàkkay ngay fay tàkkay yooyu fay. doo tàkk njëppet. sa baay bu ma jëndee xar mi ma fay dem sama yoon baay ah. mu may ma sama baat. waaw yëgaat du mu non da ngay déconné quoi Diop Diop da ngay déconné quoi yow da ngay dëbb ndox chaque jour. Diop yow indi nga sa affaire Karma Ndiangane si kër gi di nekk fii pas bu retraité di sonal njabootam ba sama yaay mu dem sama yaay dana Côte d'Ivoire léegi maire bi moo fi des maire bi nag moo ñu toggal suluxu xam nga moom mënu sa doomu daal mais comme mën na suluxu rek baax na ci kër gi léegi nag yow Diop encore da nga nar a nekk fii di indi affaire yi pas yu retraité yooyu yu ñàkk fayda si kër gi ba maire mu dem maire bi du dem fii du dem fee nag xam nga nag la sa gémmiñ xasaw na sa doom yi ñoo la koy wax kan moo ne sa gémmiñ xasaan man sama gémmiñ daa xasaan wax na dëgg papa waaw wax na dëgg ñun say naw yee Ah, danga ñoo waye jox cëy respecté ñu doo ñu jëndee xay mii lii sama yaay danga koo waye jox cëy daa sonn daaw daawaati jéet ba ma judd ba màgg ba toy nii mu sonn ci këy yaa ngi dégg xay mii béyki démboo njaay ya fi papa ah. yeesaame tey wax dëgg ya dëgg la maire bi moom fóot na fi silib fóot fi caaye fóot fi mbabal kii doo ko yab waroo ko yab sa caaye baa ak silib la ah, dese yow papa yow yan yar ah ñun tey nawee yan jox ñu waaw kii demut fenn yaay tii tii demut fenn ci këy gi yay toog. waaw mu jeex tàkk na. bu teewut un mètre tama yaaya. Eh. day toog may namp di mu may uuf di waxtaan ak man. Hmm. waaw den denn baax yi ma wax bu dee xay mi nga nay jël yow tamit tax wax ji bëgg a bàyyi xaaya tuut sax. Eh, bu nga bu rek nga commencé di sonal seen njaboot ko affaire lu leen naqar ñun teguñu leen ko. waaw ah? kay yow sax looy yi may def xam nga ko yaa wax. tama yaay di ko bàyyi ci nii waaye nga bàyyi ko ci dama ko baax yi ma dama ko laal dama ko xam nga yéen yaayee xamay ginnaaw xay mi nga koy jëndee sama yaay dina toog ci kër gi xay mi ñu yaay ko tufe ko waaye ñu misito ñun ñëpp ñu yeer man xar ngay rey ko surtout tam ta billahi wallahi xar mi boo koy rey may xaru ah? xar mi rey nga ko rek xaru naa ah da ngay xay boo koy rey may xaru laa wax loolu moom da ngay xayu ndax xayu wallahi boo koy rey may xaru yow da ngay xayu ndax xayu xaru laa wax boo koy rey may xaru jaamita njaatay ma xay mi mu da tey tey to baabi day xaru rey ko rek ma xaru laa la wax boo koy rey may xaru laa wax yéegi yenn moo mën a am jàmm ne ñooy ci kër gi voilà mooy xaay mii mu xam ne xaay ya ñun ay nit yéen te ñun ñëpp ñoo ciy bott yam dégg te nga teg tama yaay ca payaasam ah d'accord d'accord waaw tubaab xam wax ay signé yaa xam signé kaay signé ñëwa nga signé yooyu d'accord nga signé kaay ko fii ci xaay mi ñëwal xaay mee doon suñu témoin aj waaw ci ña nga ci bopp bi man ci faayaaya gi caay gen gi nga taamu ci faayaaya ci caay geen gi yaa yaa ci waaw mu jeex takk nag mu jeex tàkk ñu nag yow ñoo yam tépp ci kii nga déconné ñu déconné waaw xar bi ñoo ci bokk yem ñu nag xaami kan mooy gën a yéen kay ah kan moo gën a ëppee ci kay gi yéen moo nekk sa biir xoy yéen ñu ñoo nekk sa xoy ah. waaw tey ok d'accord yéegi nag situation bi dañ koy yeggee benn yoon mu jeex takk bàyyi sama yaay aat ok vas-y vas-y vas-y moo yàgg bu mu sedd rama rama rama baal ma cim waaw waaw xool sama yaay bakk yettu yaay aca mer aca mer cim xool koy dootee cim bàyyi ko at yow daaway papa gaa gaaway rama baal ma waaw waaw da ngay sut sukku man ana góor ak sukku eh, boo ko sutut ma yaay ah, kay aca aca mbëgg rek ànd baal ma la bëgg moo tax loola neex nga ma koy def ah, ah. ako yàttu ako yàttu aka yato lombodi lombodi bisuto bisuto yaay bisuto mbagal endo mbagal yaar du pacca kiseng kiseng kiseng yaar du pacca kiseng kiseng kiseng yaar du pacca kiseng yake yake yaari harane choke se choke yaare xare na caw kese zaba jaba jaba ke caaxo nga mel ne mel ni kaani ke caaxo ah am na dugg na ci nga mel ne xam naa ne am melokaan. femme bi wax na lu ñaaw loo xamante ne. xamoo lu la bëgg a ne ku ma jaxaani xëy be paase xëy waay. man doo ma indi problème. lii yëpp yaa sa bopp. les dofs de la scène vous reviennent plus fous que jamais le trio magique le trio de choc qui explose les réseaux sociaux trois véritables phénomènes les meilleurs de leur génération les maestros les plus puissants de la comédie vous reviennent dans Kër Saner. les docs de la scène les plus fous de l'espace théâtral sénégalais cey fu ñu jëm cey fu ñu jëm ak Saner ak Mbandumbe ak Saner ak Ñanku le golden boy du théâtre sénégalais kan moo gën dof ci ñett ñi à suivre dans spécial Tabaski sur Sénégal 7. ñàkk jox cër ba yow respecté wu ma surtout yéen aawa yéen jigéen ñi nga xam ne yéen yéen pour yoon yéen yéen seen jëkkër seen borom kër sax pour yéen ay nelawam yéen a ko moom. jënd ci ñaari xar ñu teg comme ni nga ko daan defee chaque année tabaske benn bi benn bi ñu jaay ko def ci suñuy saf-safal. yaa tegg lii. waaw. bu ma jëkkati nga ni mbote. loolu mooy. neel kuy. ah kuy. kuy. yaay sa papa dina na kuy. ray poobar yi man du ma si nekk di sonal sama bopp sax kii ba yeboo nga ko wala nga maye ko xool noo def ak moom man liggéey laa xam guddi jot ma tëdd nelaw jàpp sama ñaam bëgg nga ay kebatu nag bal ay wax a lay kii tëbel nga papa dugal dugal dugal dugal papa yow nelawaan bu bon nga am ni nga nelawee baaxul dara ah <laughs> tabaski ci fajar laa ko jël incha allah <laughs> naa la ko indil ba ca kër ga naa la ko indil ba ca kër ga jërëjëf ni ma ah, amum xar pour bëgg xar mi tëbu waaw dama bëggoon xar mi tëbu ko ah, waaw loolu kay la yow sama papa tëbukat bu <laughs> aka ay loolu yéen da ngaa bëgg ay affaire su mee ko torop lu ne loolu baaxul dama laa bëgg rek xam ne ne amul à distance amul danger moo tax amul danger léegi xaar ma commencé ma daal di wala sama karaw gis nga am naa karaw <laughs> xoolal xar mi lu mu toll ah. tons xar bi maa ngi koy xont li nga may jox yow maa koy def mais li xar bi di def day tiire rek. day xar bi tëb rek. tëb mooy lan. xamoo luy tëb. alors gawsu gawsu gawsu kolle neel gawsu mu indi jaasi gaaw xar maa ngay dee ma ngay dee nee ko ma daw si daw si gaaw gawsu gawsu. la ilaha illallah. liggéey gi dama gënal ma xar yi baax nga ma indil xar mu corona kii ba mu ñëwee ci ki gi di daanu di wàccoog di di di réeku laan dafa corona nga ne ma déedéet góorgóorlu ba indi fi cinq cent mille teg sa nga may def nii di ma jéem a ruube lii yëpp yaa ko def waaye nag auto solution eh, da nga koy yóbbu lakkul wala da nga koy ceeb bii dafa noir et blanc xoolal déet déet c'est que léeg-léeg day dugg ci waañ wi déet xoolal ko bëy ngay tabaskee kan ci sama yumpaañ sa yumpaañ lu ma ciy wax ak moom lu ma ciy wax ak moom moom ndigal lay wéyee di baal di jël décision sama ginnaaw per bëy bi laay bañ a dégg ci kër bi wax wax du bay waxu bëy laa bëgg nga teg xar mii des ci kër gi moom laay tabaske bëy yi fu mu xam nañ jëm neel waaw neel waaw yar reew waay ko maa ngi ndax sama bopp rajaa noppi bu jooy noppi bu jooy kilifa nga kilifa da jooy noppi naa lii la la ah léegi daal yow per da ngay wër say turandoo ca àll wa <laughs> am xar ci boppam bu tëboo boo ne ko jàkk rek war nga koo xam man bu ma ko laalul woon sax mën naa xam ne xar mi tëbu na eh, Tange yaa ngi ñu xëy rek bëy yeeg xar yeeg yëpp rek deewandoo loolu noo koy imaginer action bu rafet la de per gu xar tas na këram per gu xar tas na këram eh, per gu seen bët yi xool fan lay xewee Sénégal set